il faut pas que ñu leen di euh, outrager seen mémoire yi mel ni des moutons de Panurge et des porcs confits c'est pour vous expliquer que le système que nous avons au Sénégal c'est tellement système burier dama laa bëgg a xamal ne agent renseignement état. mais te jiixi jaaxal non ci ñaar ñu disparaître ci contexte bi ñu la mais mais tu poses la crime. kan moo tax ma ne loolu. léegi crime am na. kon yow da ngay dëgg crime am na si la crime. da nga koy dëggal xam nga pour ñun pour man y a pas crime y a xam nga le principe hmm. dans les cas de disparition de personnes il faut dire que y a un cas de force la victime d'abord et quand tu découvres du temps de la mort dans certaines hypothèses bi da nga am problème pour am ko parce que la décomposition ou bien l'événement l'environnement de l'événement pose problème ba xam ne doo fa mën a. sauf que sur quelle session on a vu deux versions. man am na ay médecins légistes yu ma waxtaanal ci biir ne ma amul benn possibilité pour ñu dàq hypothèse u def ci autopsie. mais boo xoolee. mu uuteeg li communiqué. procureur de la république wax. le Fatou Joola on a reçu des corps man maa leen recevoir. ils n'ont fait trois jours. mais mujj na boo laal sa baaraam mu ndox la xam nga looy chercher ci. noyade looy chercher. oui la présence de l'eau il faut voir que la présence de dans l'eau est antemortem ou postmortem c'est ça la thèse moo tax ngay dem autopsie que ah dafa dee ko ci ndox bi wala dafa dee su dee ñu ko ci ndox bi am ndox ci poumon yi du am ndox ci viscères yi point barre. te mënuñoo wax dara ci. non mais mais dama maa ngi ñëw. ci kii mënuñu cee wax dara ma ñëw. mais bu waaj defee une semaine ci ndox bi. le problème qui se pose il y a éclosion des viscères et il y ndox mi même bu ndox nekkoon ci moom da koy ingurgité ndax day commencé def œdème et quand il fait de l'œdème les orifices mooy gémmiñ gi anus yeeg nopp yëpp day ubbeeku ça veut dire que même de l'eau là-dedans suivant bien de oui s'il y avait de l'eau dans son corps et tout le corps parce que nit bon yama yàlla baal euh, yaramam comme yaramu porc la booy def datation la mort ci porc ngay jàngay pour datation bi donc boo laalee lépp dugg donc y' a plus rien là-bas. kon lan la ñu bëgg loolu li nga mën a def sur cette question kon du leer clinique la médecin le médecin su ñëwee cliniquement rek bu xoolee cliniquement day xam ne kii noyade la parce que xam nga bu nit ki nekk ci noyade met da ngay gis day weex tàll comme puune après gën balance ak puune puune médecin yi dañu jàng dafa am noo xam ne boo xoolee corps bi rek. da nga xam ne mais médecin légiste bi nga xamante ne moom la procureur de daal di daal commerce ci cas bii nii. mais dama bu demee ba préciser que ni dee bi àndut ak benn violence. moom laa wax cliniquement la koy wax yegg foofu à ce niveau wax. non loolu bu bu nit dee man damay daan da ngay dem autopsie ñu da nga daan dem autopsie assiste di dina def PV. le médecin day summi corps bi tëral ko ci marbre mesurer corps bi léegi nag da koy xool cliniquement xool contusion. xool des plaies traumatiques xool des arrachements de chair dents yi xool anus bi nagam dañ ko fiyoor dañ ko nangam yooyu yëpp ay hypothèse la ñuy xool day xool lu mu yàgg mu xam ne kii dee gi mécaniquement euh, amul benn de de de de mécanique traumatisme amu ci amul amul perforation de de de l'organisme ñu jam ko paaka amul euh, balle amul déchirure amul traumatisme parce que day def œdème xam nga yeneen dama tamit day def œdème. mu il regarde tout tout tout y a rien maintenant s'il veut benn il peut faire de l'autopsie pour voir les pathologies qui ont causé la mort la waaj dañ ko sonal mu asthmatique mën dem ci biir aussi mën nga dem ne waaj est-ce que tiitaluñ ko sonal ko maltraité ko hmm. mu diabétique insuline bi yëg mu dee wala waaj il est dans les secrets d'infarctus du ba tey ay interrogation moom laa la wax dama ne du ñu xam lan la dama la dure laa lay wax pour que waxkat yi arrêté xam boo waxee ñu ne major Kandji la wax mën na def ma ne mais je moo tax nit médecin il faut ñu baleen seen war ak seen liggéey le procureur n'est pas médecin il fait la réquisition il donne. justement on médecin mais dama ne ba fii laay wax ak yow. mais lu ñaaw lan réellement. mais boo xoolee lu ñaaw di ko wax. xam nga nit ki day dee présent fenn nga ñëw léegi noyade bi nga doon xalaat dañ ko rey post-mortem ou antemertum l'hypothèse la tu peux plus l'établir tu peux pas dire que la présence dans l'eau est antemertum mm. mortem ou post-mortem dans cas d'espèce environnement ngay mën a def. d'accord enquête normale kon dañuy dox nii dem. duñu da ngay am non di ni ngi koy enquête. ñu ngi enquête bu baax. est-ce que mën nga confirmer également. ma na enquête ñoo xam ne ñooy informé. Ousmane Sonko am ñooy informé Pape ñooy yooyu bari ci réew pays bu mel ni Sénégal maintenant y a des problèmes parce que tout le monde fait de la manigance di même pourquoi yow sax xam nga ci dara hmm. yaa ngi ci journalisme gis nga ñu lay woo di la wax ne hmm. léeg sax da léeg am na ñoom moo ko wax. Hmm. parce que da ngay xam ne kii mën na ci am ay intention yu muy jéem a labat. mais maintenant on sait que mais nii lu ñor mais réew la nekk ah il peut y avoir tout parce que maintenant comme ay fonctionnaires lañ ay promotionnaires ak hmm. mais lépp ci nekk. mais ku neex nga jàppale ko la neex mais ñi nga xam ne ñoom dañ leen tënk ñoom. Hmm. ci secret ak ki nangam mais ku ci def ci waroon ñu jàppale dàq la point barre. te loolu mu ngi am instant bi dàq ku ñu jàpp dàq. gendarmerie xaw ma malaise bi gendarmerie nationale moom ku fa fayeer ñu dàq la ba léegi dóor dàq la c'est clair nag Moussa Fall à dóor dana non pas dóor yar ah. dana tëj kaso defal la dossier dana dàq parce que moom du du ko du ko valider gendarmerie doo sàcc doo détourné doo tux yàmba doo violé di fa nekk doo sàcc kayit doo indiscipline c'est clair d'accord et doo falsifier la doo fara mais falsifier PV boobu la jiiñ procureur de la moom laa lay wax li ñeneen ñi ñeme gendarmerie duñ ko fa def gendarmerie ku ñëw da qualifier infraction bi def yam ci rendre procureur yam ci liñ la def mais léegi li mu yuuxu ne complot dafa am tudd leen ci ñoom kon doon du mës a leer Ousmane Sonko mi tudd Serigne Bassirou Gueye tudd ki nga xam ne ma ne ndax du leer loolu ma ne loolu maanaam mu bañ a doon wax wax rek nii non nan la ñuy def ba mu leer xam ne am na wala am mais moom moom li nga def amul enquête da ngay dénoncer li ngay dénoncer mais am da ngay bind say plainte joxe déposé na ko IGAJ mais laissez léegi IGAJ dafa enquêté. IGAJ hmm. dañuy enquêté seen rôle la ils vont enquêter mais bu ñu amul dara noonu la. d' accord mais ñëpp porte plainte Sénégal koo porte plainte da ngay indi preuve moo tax il faut être très vigilant et très prudent. Hmm. nit boo koy teelu ba ko dóor mu daaru hmm. da nga koy piéger ba mu poser acte. ah <laughs> oui am ce qu'on appelle l' élément matériel. waaw booy jekku nit da nga koy teelu mu def fat da koy provoquer mu def fat nga téye fab bi ne ko ratt téye bu ñëwee devant les faits le gars ñu leen criminel ñu leen point naa si ne léegi c'est un principe de droit et de légalité fa nga koy téye ratt il va partir jamais du génn kenn du ko téye du kenn ko ci bën criminalité bi comme cas bi xew ca Mbour lu ci sa sentiment wala ça c'est des phénomènes de société c'est ce qu'on appelle euh, la criminalité apparente maintenant hmm. day feeñ carrément et les facteurs la ñuy rechercher ce qu'on appelle les facteurs endogènes comme exogènes hmm. da facteur du crime yi dafay am macro micro facteur yu ndaw la ci biir mais génn ak ci biir mais ce qu'on cherche maintenant. Hmm. y a la délinquance économique les gens veulent avoir de l'argent ils sont dans les faux billets. oui ils sont dans les vols à main armée. oui jaayam drogue bi également drogue bi c'est c'est beaucoup de gens qui vendent la drogue. maintenant le gosse là il vient de Thiès il a cherché une arme parce que parfois il dans les braquages et il a peur d'être arrêté aussi. donc il s'est armé pour ne pas mais s'il intimide tu donnes il la fuite. mais fa pour se débarrasser les délinquants c'est ça danger il faut qu'ils éliminent leur première victime quoi nga xam ne témoin lay doon moo tax boo demee Nations Unies wala yooyu bu ñu la braqué wala bëgg la sax dañ naan la joxeel rek et ne regarde les auteurs parce que boo leen regarde dañ naan la leen identifier soo bañee joxe mën nañ la rey hmm. donc loolu phénomène la boo xam ne parfois c'est très difficile de l'éradiquer comme ça ah mooy dans les les centres yi nga xam ne dafa am intérêt hmm. il avec des personnes. waaw il faut autoriser les agents de. fii am changé yooyu bien les structurer autres et puis mettre des grilles yoo xam ne bu faa ñëwee ils n'ont jamais accès au gérant. Hmm. bu dee banque en grande pompe ça peut être mais les les les les microcentres là. les PF là les centres de paiement de paiement financier tout ça il faut les garder et les sécuriser en barreau. d'accord ñu jeexal ak Amadou Ba noo ko gisee démb est que jàpp nga fañ ko doon xaar foofu la ñëwee. Amadou Ba il et il a reçu Amadou Ba dafa professionnel Amadou Ba c'est quelqu'un qui pratique il est très pratique il dit jamais des choses sans doit de préparer wu Amadou Ba gis nga politique bi mu def mm. il a les moyens même avant de le faire moom noonu lay fonctionner et instruction yi mu le président Macky Sall dafa def preuve de résilience tant sur les conséquences de la guerre en Ukraine comme sur les conséquences de la Covid-19 le Sénégal est le seul pays Covid bi am dans un pays africain du tiers monde. Mm. mu am mu mu assumer résilience bi fexe ba soudure am amul disette amul chômage bu ñu dàq nit pour affaire de crise économique et que les institutions marchent normalement. am na nag ay exceptions ci yenn entreprises yoo xam te mu mujjoon nañoo dàq. mais mais parce que y en a qui en ont profité. waaw moi j'ai des j'ai j'ai vu la BND supporter toutes les entreprises. quand même il gens qui en ont profité. ils ont la banque frauduleuse. mais c'est pas la l'État a donné à tout le monde a payé des salaires jusqu'à ce que les activités soient reprises et puis beaucoup de personnes dañuy wax mais Sénégal sax ñu bari taxawuñu woon ñu doon liggéey donc Amadou Ba en ce qui concerne euh, le secteur macroéconomique bi oui. avec son mm. euh, bien préparé côté santé c'était bien préparé et tout les actes ont été kon yow bu ñu déggee mooy nii tey Amadou Ba jekk na ci épargnel Sénégal coowal troisième candidature mu doon dauphinat bi non question de finance ou pas c'est pas son problème. waaw non yow laay wax. non non mooy war na mën a dem ou pas le troisième mandat. mais a droit à un troisième mandat s'il si la loi lui permet de se présenter au troisième mandat et moom mu bëgg ko mais da koy déposer. la mu waxoon yëpp kon non mais kooku moom la engagé. ah bu boobaa aussi ñun ñu koy jàppale. Hmm. ñun ci jàppale bi ñun la engagé c'est point barre. ku nekk ki nga faral tu fais ce que tu veux avec. jekkutoon ci moom Amadou Ba jekk jekk bi mu loolu moom Amadou da nga ko wax à temps réel xam nga Amadou euh, Amadou sa Macky Sall lu ko intéressé c' est de c' de faire fonctionner les de prendre des gens compétents comme ñoom Amadou Ba. Hmm. ñoom Aly Ngouille placer leen ci ay affaires ñu doxal réew mi. mais attention l' opposition n' a pas encore dit son. dernier mot de censure mais son nom di. oui déggoo ma qui sont plus mais je veux dire ñoom. tamit si seen taxawaay la ñu ci plénière bi mooy que ne am na ci. ay budget yoo xam ne voté wuñ ko surtout jëm ci ministère de l'intérieur ba mu fa demee woon kër li ñu ci jug mooy répression maintien de l'ordre duñ ko voté mais vous avez dit maintien de l'ordre on ne maintient l'ordre que quand il est susceptible d'être troublé on rétablit l'ordre que trouble xam nga lan ngay war a conseil Sénégal yi que la crise économique mondiale c'est une réalité c'est la résilience des uns et des autres la cohésion nationale moo tax nit mën ci génn mais amul benn réew bu ci mën a génn ak benn pexe même fi ne bu asamaan si wàccoon di taw wàcce euh, crème glace ak yooyu du dem il faut ce que vous avez di dire en Afrique pour notre développement et notre sécurité oui. c'est de faire tout pour qu'il la paix et la cohésion nationale et l'entraide nationale les recherches que nous avons et que d'autres ont faites dañu montrer que monde bi ñu jëm s'il n'y a de solidarité et de justice du dem. ah mais kan moo ko njëkkee. non njiit li taxawaayam nag jëm ci opposition. non y' a pas de réduire à sa plus simple expression la ñuy dégg non y' a pas une opposition à réduire. non mais y' jamono ji gis nga mais arrêtez y' a pas une opposition à réduire c' le prix de la guerre parce que les gens qui se posent ils veulent un pouvoir à tout prix. à tout prix. non mais je vous dis monsieur au Sénégal et en Afrique surtout au Sénégal doo fi incriminer beneen pays. lan mooy non ma ne pouvoir à mooy à tout prix. mooy de s'opposer à et à rien dara baaxul dara du dem te lu ñu wax nga indi violence verbale et violence physique mais monsieur il faut qu'on soit d'accord ce qui se passe au Sénégal képp koo ko hypothéqué tu mets ta vie en danger. ma ne on peut faire yëpp da ngay jël sànni la politique tout ça l' état n'a pas sorti des gourdins c' est des gens qui gouvernent et ñi ngi fay salaire ñi ngi faj nit ñi étudiants yaa ngi jàngi ku mu neex jur doom fukki doom état bi jox leen école ku feebar dem fa ñi ngi jox liggéey ñi ñu mën a jox liggéey ñi ngi subventionné agriculture ñi ngi subventionné. mais nangul ñu wax ne mën nañoo def mieux que mais il faut pas faire mieux monsieur Seydou. mais lu tax loolu c' est état def leneen. mënuñoo def mieux que le président mais l'État est au sommet mais dans un pays où l'on subventionne tout ce qu'on mange ak courant bi ñu utiliser ak ndox mi si dem ba location yi di ko wàññi. mais loolu mooy jafe-jafe bi mais on est dans quel état ban état mooy dox ak subvention. loolu lay wax ji monsieur war ñoo yegg à ce niveau où dañu gouverner par subvention. non non non on a subventionné parce qu'il y a une crise économique mondiale il y a la hausse des prix qui n'est pas maîtrisable parce que c'est une question de péréquation et de stabilisation des prix. bu ñu un état rek un état tiers-mondiste ne peut pas perquisitionner il stabilise les prix pour des raisons pharmaceutiques la pharmacie nous tous nous sommes des malades on n'achète que des médicaments chaque jour le riz là que nous cultivons la bale là gars yi ci bale bi sax béy ko normal la Casamance est en guerre on ne peut pas cultiver normalement la le et le est la base de nourriture on l'importe et puis maintenant malheureusement y la y a la Covid 19 après y la guerre en en nous mangeons pas du cere le matin ci mburu bi mi ngi France mille et quelques Sénégal fii cent soixante quinze te même pain la ñoo leen gën mburu brioche dorée gën mburu France. d'accord ma ne donc yow loolu non loolu boo ko gërëmewul nit. parce que tu te poses tu bis boo ñëwoon sax da ngay taxaw di tàcc. ñu fekk la ba dóor lay yor ba nga dekk ni kaña nga toog. dóor yooyu amoon na ci assemblée nationale député yi déglu nañ leen tey ñaar ni lan nga jàpp moo a doon seen sort. non flagrant délit loolu vraiment lu ñu discuter. seen sort dañ ko bàyyi ak mais ce qui est sûr. flagrant de bi les moom vraiment c' est mais comme il était en session kenn mënu leen woon am lu leen di jàppee après quoi. mais c' est des protocoles internes ñoom ñoo ko maîtriser. Mm. mais les faits sont constants du lu ñuy laam-laam ak lu ñuy wax. Mm. jigéen moom koo ko sawar. Mm. ak dóor ko bu porter plainte franchement. dafay wàcc euh, doo am looy wax quoi. looy wax ci challenge la morale et la pudeur même. du permettre ñu ciy wax wax ju bari. challenge bi. maa jéeri bi comme yow ci la parole non verbale mooy mais c'est man man man bu doon man sama ci laa bokk duma ko hmm. dama du lu tax parole non verbale lu muy symboliser ci yow lu muy symboliser débonnaire fourre-tout quoi je m'en fiche de tout mooy loolu la fourre-tout waaw wax acte boobu mu def maa la wax bu na ja na laaj njëriñ bi ko jàgg man kay li may wax lu ma jàng lay waxuma ko pour far ak ko ma ne maay jéeri c'est un geste banal. ma ne un un prétendant président de la République. oui dans des événements nga nekk dans l'environnement d'événement. oui nga génn dóor maar yooyu mooy je m'en fiche de tout. te nekk woon ci événement ah. non non dama di ma la koy mënoo ko rafetal. xam nga man maa la gën a bokk ak Ousmane Sow. moo tax ma lay ma lay expliquer rek maa la gën a bokk ak moom. dama leen la su doon man la du ko def. ah oui. li ma c'est aussi grave que ça. comme parole non verbale la. ce signe de violence la ak ak de débonnaire c'est pas bon bu mu ko defee bu mu ne nii bu mu yàq li ma la wax ay téere la et puis on continue quoi xam nga léegi Sénégal loo wax ñu wax la leen. wax leen mais je le la tombe d'Amama Mbaye bu ma ko doon di ko def. maa la wax loolu. xam nga nag fii comme doxewuñ xam-xam. Hmm. ay contre la ñuy dox ak sentiment mais ils peuvent tout dire tout ce qu'on veut. mais je vous dis liir ko tegaatal geste bi nga liir ko xool. Hmm. gis naa ñu koy toppandoo. mais liiral tu sais dafa am ay gestes. yoo xam ni xam nga le gesticule la gesticulation. oui on l'appelle de la parole non verbale. léeg-léeg nit di wax ci àll ba nga ne ko mooy lan. noppi mais loolu la bu nit di nekk demal demal demal. mooy lan mooy lan. demal mooy bon ah, ni mooy. parce que boo boo nee sa tànk mooy lan. waaw ah, mooy lan ko wéq ko. la parole non. Ah verbale koy rattaché ak li xew. non dama ne parole dafa am gesticulation yoo xam ne boo koy def. da nga koy seet xam nga autorité monsieur day am posture ah oui weer laa la wax loo def ci dalay topp et puis les gens analysent dafa am ñu am xam-xam beneen dañ naan comme xam-xam bu ñuul li may wax rek. si pour que que les gens en fassent attention. ñu bàyyi ci xel. waaw mën nga fekkee nag ni nii c'est la c'est la c'est la jovial tu es jovial. Hmm. tu bien ah, président yi nga leen. nii doo wéq. doo weq de doo weq <laughs> d' accord en tout ñu ngi lay gërëm mais lu xew temps yi gis nañ tamit wala loolu moom doo ci wax. non loolu du ma ci wax. waaw li xew xam nga gor. waaw ñu xam nga gor gor gor loolu du ma ci wax. mais pour nga wuyu ji procureur la république wuyu ji wuyu ji naa seize fois laa dem wax ni jàppante fekk. non c' est maanaam moom laa wax ak say doom. ne du xam nga caay caay. caay caay koy faj. mooy bu wax jotee danañ ci wax. ah non maa ci bu baax a baax lu may régler la sama bopp doo réglé sa bopp. naa ko réglé mais mujjee woon génn. non ma ne déglu ma de man lu leer laa wax man garmi pire laa. je suis un noble de père. mais naka nga mën a continuer non dama lay expliquer ne. man du ma sàcc du ma labaj du ma xam nga nee naa la léegi fi ma jógee service bi. <laughs> dossier bi ma yoroon. le gars j'ai mis que 43 millions pour lui te pourtant il y a 350 millions à côté yoo xam ne c'est présent mais moom foofa mu nekkoon ak la ma ko wutaloon. Hmm. moo ko gënal. xaalis boobu ndax dafa def leneen leneen. Ah. mais bu doon caay-caay damay jël fee cent millions ne ko sa 43 gi ñu jëlal mu demee tribunal perte man du ma sàcc du ma labaj du ma lekk riba sama baat ni poto def naa gendarmerie 36 ans kenn mësumaa gis ne ma lekk naa 1000 francs nit. kon lu ñu jéem nii lan la. non xam naa li ñuy def. Ah. xam naa li tax ñu def ko. et puis dans Sénégalais lu man ñeent fukki nit la yu état bi jox comme moom. Hmm. moom rek mu def di manipuler des fonctionnaires ñuy def du n'importe quoi. di duural ay nit di ko labaj. am na bal sax bu. non jaar ci sa biir. da ngay def da ngay bal dafa tiit def incident de la mais c'est pas grave. mais laal ma diggaale ko. dégg naa nga waxoon ko de Serigne Bara bi nga doon bi nga doon jokkalante ak Serigne net monsieur je le dis que celui qui m'a fait de l'injustice maa koy fajal sama ndax man du ma def injustice du ma lekk riba du ma labaj ku ma def injustice ma fajal foofu la réew mi toll. maa la wax loolu ma la man moo tax samay wax lu may wax doomi aadama àq lay taalala yow ak lu lew nga di lekk lu rew doo lekk riba ku ma duudal complot ma ma faj ko luy toog ci yow def ci koo mënti koo mën a doon ñu ngi lay gërëm di la sant ñu ngi gërëm ñëpp waa di ñaanal sénégalais yi di wax nit boo bëggee yàlla aar la da lekk lu lew mm. del wax mm.